mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yi seetaan Sunrise TV fu ngeen mëntu nekk si àdduna ñu ngi leen nuyu di leen ziyaar di leen ndokkel rawatina si bis bu tedd bi di bisab gàmmoog Nema Nazir nga xam ne mu ngi tombeel tey on the 6 March 2021 euh, ñu koy defee fii si Nema Nema di dëkk bu tedd bokk yit si dëkk yi nga xam ne dëkki Cheikh Ibrahim Niass la mhm. euh, tey ku ñëw ci pàkkab Neema Nasir doo ko mën a me ak fële nga xam ne mooy Madinatu Baay Ibrahim Niass ngir taalibe yi nga xam ne wàcc si nañ fi tey ak kilifa yi nga xam ne teew nañ fi tey loolu yëpp dafay jëmmal liggéey bu rëy boobu nga xam ne moom la sëriñ bu mag boobu di suñu sëriñ Cheikh Ibrahim Niass doon jëmbat si li nga xam ne mooy àdduna bi waaye di ko jëmbat rawatina fi nga xam ne mooy Gàmbi ak Sénégal hebaloon fi doomam ju màgg jooju di fadilatu cheikh Seydi Mouhamadou Nadir bin Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhum ajmain liggéeyam bu réy boobu moo roogaat tey baxag si fii si Gambia nga xam ne ndigalab way juram la fi tooge woon nga xam ne mission ab baayam la doon mottali si kaw suuf muy Cheikh Ibrahim Niass ku nekk xam ne juhdu bi nga xam ne moom la def si lislaam waaye tasaare gi nga xam ne it tasaare na ko lii di lislaam tasaare ko tariqatu Seydina Cheikh radiallahu anhu fi jamii anhaai l aalam mbokki mbokki Sunrise TV eh, ñu ngi leen wax ne tey moo tombel gàmmoog neema di neema nadir nga xam ne neeme yi bëri nañ lool waaye boo tuddee neeme rek xel yëpp daj neema nasiir loolu nag barke moo koy waral ndax góor gu tedd gi dafa waxoon ne borom barke kum denda dañ la xiir loolu na moo roogaa tey baxat si si góor gu tedd gii di Cheikh Mahamad Nadir nga xam ne neema Nadir euh, maanaam mujj na daan mboolem neema yu fi nekkoon su ko defee tey ñu xam fi gu tedd di suñu sëriñ di njiit di suñu imaam di imaam Ousmane Jammeh xafidahu euh, llah waraahu tey moom lañ xam gan dalal ko suñu plateau bii di Sunrise TV euh, di ko tatagal waaye di ko ndokkeel di ko mastawu coono it ngir ne xam nañ ne liggéey bu rëy moo tegu si kaw loosam wii waa ànd ak loolu yëpp cofeelam si Sunrise TV waaye cofeelam ak himmaam si li nga xam ne mooy lislaam himmaam ci tariqatu Sidna Cheikh himmaam ci xadra Mawlana Cheikh Sidi Ibrahim Niass radiallahu anhu ànd ak loolu yëpp mu bàyyi soxlaam pour ñëw jàkkaarloo ñi nga xam ne ñooy mbokki taalibe yi ñi nekk si biir réew mi ak ñi nekk bitim réew ngir bëgg a waxtaan ak ñoom kon sëriñ bi ñu ngi lay wax ne ñu ngi lay dalal jàmm fii nga xam ne mooy Sunrise TV nga nuyoo ak mbokki jullit ñi lay seetaan ak mbokki taalibe yi bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بظفر آه، مبكي ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci kàddu lislaam di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala ñu ngi leen nuyoo fii ci ëttu kër gi di Sunrise TV ñu ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun ci àdduna di seetaan programme bi ci bésu tey bii nga xam ne bés bu màgg la ci lislaam waaye bés bu màgg la ci dëkk bii di Gambia waaye bés bu màgg la ci dëkk bii di Niama Nazir ñu fi amal mawlidu nabi mawlidu nabi nag suñ ko waxee mooy gàmmu gàmmut buñ ko waxee mooy fàttaliku juddub Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam góor gu màgga Mawlana Cheikh Mouhamadou Nazir euh, sosoon ko fi alhamdulilah ñu di ko màggal ba jëmm yàlla tey ji kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ñu ngi ciy ndokkel bépp jullit fépp fu waay mënti nekk rek ñu ngi la ciy ndokkel waaye di ci ndokkel spécial télévision bii nga xam ne tey mu ngi yeggale xabaar yi mu ngi yeggale édition yi ci fépp ci àdduna ñu ngi leen ci ndokkel di leen ci ñaanal yàlla salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, si nuyoo bu jot boobu si nuyoo bu rafet boobu waaye euh, suñu la doon laaj si euh, Ousmane gàmmo maanaam ban mawqif la xam si lislaam ngir ne ñenn ñi seen gisin si gàmmoo mooy ne bidaa la maanaam dafa wuute ak sunna ñenn ñi di ko layal ne gàmmokat maanaam uslub la si uslubi daawa yi tey boo ñu doon maanaam maanaam indil définition définition yi gàmmo tey lan nga ñuy wax si gàmmu ngir mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yi lay seetaan euh, alhamdulilahi rabbil alamin euh, yaa oustaz ñu ngi sant yàlla bu baax beneen yoon di kontaan bu baax ci sa laaj bi euh, di lu jëm ci wàllu gàmmu ak lan mooy ci gis-gisu jullit ñi mm-hmm. lan mooy ci gis-gisu nit ñi gàmmu bëri gis-gis mm-hmm. bari na définition yo xamne mën nañ ko koy jox euh bokku na ci rek euh mën nañ wax ne uslub la min asalibi da'wa al islamiyya kom ni ko waxe lan moy ci dalil suñ borom subhanahu wa taala wax na ci ben aya ne udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana wa jaadilhum billati hiya ahsan kon buñu wéro ci aya bobu dañuy fekk ne yàlla dafa sante ñépp ne nañu oté jëmee ci yoonam waaye nag oote bi dafa war a jaar ci ay étape yoo xam ne étape yu nit ñi mën a understand la loolu mooy bil xikma xikma suñ ko waxee mooy technique mooy xereñ tey bépp uslub boo xam ne mën nga ci jaar ba woo nit ki bëgguloo ko yàlla bëgguloo ko yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama ko asxaabul kiram bëgguloo ko xulafaa u rashiduna bëgguloo ko taabiina yi rek loola dafay bokk ci diine dafay bokk ci lislaam tey bu ñu xoolee gàmmu bokk na ci uslub yooyu ndaxte yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ci benn xadis ne bëgguloo leen seen doom yi alquran ak yonentu bi di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te tey bu ñu xoolee gàmmu li muy bëggaloo nit ñi mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te nag nit ki balaa nga koy xam balaa nga koy topp il faut nga bëgg ko yàlla wax na ci benn aaya ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah waaye naka la ñuy toppee ku ñu xamul nag kon il faut dañoo war a jàngale seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi xam ko suñ ko xamee danañu ko topp gis nga yonentu bi kenn bañu ko kenn weddiwul ko xanaa ko ko réeree mbir lii rek moo fi nekk waaye ñi ko réere mbir nag lan moo tax ñu réere ko mbir man damaa jàpp ne dañ ko xamut kon dañoo war a fexe xamal nit ñi kan mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa diina bi mu indi nañ seet bi mu tudd mooy al baatab sa mu ngi jóge ko ci salaamu bi fiiri jàmm aslu bi mooy salaam ok salaamu mooy jàmm diine joo xam ne diiney jàmm la diiney peace and love la hmm. ok diine jooju dëgg-dëgg bu ñëpp xamoon mm. lan mooy diine jooju yaakaar na ñëpp dinañ ci ñëw mm. te kenn du leen ci woo mm. parce que doomu aadama jàmm la bëgg doomu aadama euh, bànneex la bëgg doomu adama teraanga la bëgg doomu aadama xéwal la bëgg te islaam diina la joo xam ne yii la taxawee léegi nag ki ki oote woon diine jooju di yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa jaadu pour nit ñi xam ko dafa jot pour ñëpp xam ko suñ ko xamee danañu ko topp ci ni ko yàlla santaane qul in kuntum na laa ci aaya boobu fattabi'uni la suñ soxlaa yàlla direction bi mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku lañu yàlla joxoñ ne nañ ko topp mu ànd ak ñun jëm ci yàlla kooku nag dañ ko war a xam bokk na ci niñ koy xamee mooy jotaay yu mel ni jotaay yu gàmmu ndax kenn ci njabootu cheikh ibrahim radiallahu anhu wax nañ ne xalifaam la di taawam bu góor di alxaaj abdullahi mi nga xam ne bàyyeekoo na fi mas na laaj way juróom Baay Ñas ne ko lan mooy gàmmu bàyyi ne ko gàmmu daal lu ludut tagg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ak waxtaan ci diine waaw bu fekkee gàmmu am daax la ak xadisun fi diin dëgg-dëgg kon loolu am na aslu ak asaalatu ci diinal islaam ndax ñaar yooyu ñooy diine xadis waxtaan ci diine. Mhm. ak jàngale yonent bi tax tey buñ ne am ndax lañ jublu ci matx yooya mooy xamle kan mooy yonent yàlla muhammad mhm. sallallahu alayhi wa sallam te buñ delloo ci alxuraan sax dañuy fekk ne yàlla mi ko bind. Mhm. bind ko ba mu rafet. moo ko njëkk a taaral. teg ca taar bam ko. Eh, taaralee ndax wax na ko ne wa innaka la ala xuluqin azimin xam nga loolu tàggaate la te ci lim ko tagg mooy jikko jikko waykatu arab ba ahmad shawqi ne na innamal umamu axlaaquma baqiyat fa in humu zahabu axlaaquhum zahabat kon jikko moo fi ba nit ki tey bu ñuy nettali nit imma ñu wax ci moom ay baax-baaxam wala ñu wax ci moom ayu bonam kon bu fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko la ko yàlla tagg eh, kon kooku yàlla ko njëkk a taggal boppam moo tax Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu koy tagg bokkoon na ci lim doon jëlee ekcuus di ictidaar noon na kayfa matxi liman sanaahu ilahi munzalan fiihi duuna mal ijmaali naka lay taggee koo xam ne yàlla moo ko njëkk a tagg tudd ko ci biir téeréem ba te jubluwutoon ci taaral ko waaye daf doon wax mooy kan yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waxal na boppam ne adabani rabbi fa ahsana taadibi sama borom yar na ma waaye rafetal na nim ma yaree dégg nga yàlla waxal boppam ko waxal ko boppam ne wa innaka la ala xuluqin azim hmm. kon suñu seetee kooku dëgg-dëgg ku ñu war a roy la dëgg-dëgg ku ñu war a jàng la waaye dëgg-dëgg ku ñu war a jàngale la gàmmu nag ëtt la boo xam ne hmm. madrasa la boo xam ne madrasa daawal islaamiya la hmm. boo xam ne dafay jàngale yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax ma ne la gàmmu uslub la min asalibi daawa al islaamiya kon su ko defee gàmmu dañuy gis ne am na aslu ci islam dégg nga Maolana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu laaj nañ ko gàmmu tey buñ ko doon uutal lay ana ban aaya wala ban xadis la ñuy jël ñu layee ko gàmmu dégg nga mu wax ne yàlla wax na ci benn aaya ne wa kullan naqussu alayka min ambaai rusuli maa nusabitu fi bihi fuaadaka yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dinaa la nettalil solo sa eh, min ambaay rusul solo yonent yi fi jiitu woon loo xam ne maa nu sabitu bihi fuadaka loo xam ne dana mën a daal daal sa xol mm-hmm. léegi foofu sax bàyyi wax na fa mm-hmm. nee na bu fekkee ne yonent yàlla Muhammad mi gën yonent yi yëpp mm-hmm. moom la xabaarab yonent yi jiitu woon di dëxal xolam kon ñun bu ñu nettalee xabaarab yonent bi lan la war a def ci ñun ah, ñoo ci gën a yeey te ñun ñoo ci gën a ah, yeey kon eh, aaya boobu la baay laye woon ne aaya boobu moom mën na koo layee ne loolu moy gamu ndax yalla bam waxe yonent bi ne wa kullan naqussu alayka min ambai rusul maa nu sabitu bii fu daf ko commencer ca adama alayhi salatu wassalam netril ko qissam fam jaron ak ñako nangulon ak ñako bañon ku melni non ba iblis hmm? is qaala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa bam jeex nga nga jàngat mbirum adama ak malaika yi ak iblis ak suñ borom subhanahu wa taala moy ki yalla njëkk bind waaye mooy ki yàlla njëkk a yónni hmm. mooy ki njëkk a nekk xalifa yàlla ci kaw suuf hmm. dañu di nettali ay xisa yonentu jaar ci noox jaar ci ibrahim al xalil jaar ci eh, eh, Moussa alayhi salaam jaar ci isa mboolem ambiyaaw yi nga xam ne alquran tudd na leen ulul azmi mina rusul hmm. ak ñeneen ña ca topp ñëpp ñaar fukki yonentu ak juróom kenn ku ne yàlla nettali na sa xissa fa mu tàmbalee ba fa mu jeexee nettalil ko kan sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ku mel ni Ibrahim seetal fi mu jaar tey mën nañ jël référence ci moom kenn rek doy na walis yeneen yonent yu des Ibrahim al Khalil bi ko nam Namruz buur bi mu tombeloon jamono pare ne li muy woote daf koy bàyyi du ko continuer léegi lan la Namruz def woote taxanam mat ñu taxanal ko ba mu baax mu taxal safara safara soo xam ne tàkk-tàkk ba doom aadama mënu koy jege ñu jël Ibrahima sànni ko ci biir safara soosu alquran nettalil ñu ko ne yàlla wax safara sa ne ko yaa naara kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim dégg nga li tax ana lan mooy solo pour mu nettalil Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam xisa boobu pour mu xam ne fu mu jaar Ibrahima jaaroon na fu ko gën a métti pour mu xam ne fi mu jaar Isa jaaroon na fu ko gën a métti Muusa alkalimu jaaroon na fu ko gën a métti keroog ba muy taxaw ànd ak banu israila fukki giir ak ñaar ca baxru xalsuum di wax naan inna la mudrikuuna ah inna ma'i rabbi sa yahdini ah dem ba jaaxle yonent bi eh, ay ñi mi àndaloon jaaxle lool naan ko Moussa gars yi ñi jot te bu ñu jotee rek du baax Moussa na leen déedéet du duñ ñu jot mukk ndax man yàlla mu ngi ànd ak man te xam naa ne yàlla du ma bàyyi mukk kon maanaam eh, li nga wax noonu ne yonent bi sallallahu alayhi référence la ko yàlla doon jëlloo si yeneen yonent yi mhm. ngir mu man sa dale yi moom mhm. maanaam man a man a ngir lu daloon moromi yonentam mhm. yi euh, suñu fàttali ko foog naa ne yàlla wax na ko si suratul an'am wa laqad kudibat rusulun min qablika fa sabaru ala ma kudibu mu mel ni bi sallallahu alayhi wa li Cheikh Ibrahim doon wax rek fa la ñuy delluwaat maanaam nusabbitu bihi fuaadaka ga mm-hmm, mm-hmm. keroog ba ko yàlla nettalee xisaab aadama comme niñ ko indee mm-hmm. sa wa isqul naa lil malaa'ikati usjudu li aadama jege ko fa di dama dem ba keroog yàlla di wax Moussa na ko idhab ila firawna innahu taqa foog naa mooy xis bi mujj ñëw si alquran si xis si yonent yi ànd ak ba ko ko yàlla nettalee daf ko wala xad kutiba rusulun min qablik fa sabaru kon mm-hmm. maanaam daa'i mm-hmm. foog naa nit mënul koo def te nekkoo saabir mm-hmm. si maanaam sifaatu daa'i la nekk léegi gannaaw ba nga xam ne jàngal nga ñu lan mooy mawlid ak maanaam lay yi nga xam ne moom la si góor gu tedd googu di aalimul allaama saaxibul faydu at tijaaniya Mawlana Cheikh Ibrahim Niass nga xam ne wax dëgg yàlla mel ni moom si xam-xam yombut mel ni moom si dégg yombut maanaam dëggalaat li nga wax ne mm-hmm. nit mëntu bëgg lu mu xamul mm-hmm. kon yonent yàlla muhammad ñun mënuñ koy bëgg te xamuñ mm-hmm. fu naa si ibrahima moo waxoon ne wa ida saara xayrul wara sirtu waraahu maanaam waxtu yonent yàlla muhammad teggee jéego man Cheikh Ibrahima fas yéene naa pour teg fa jéego man la ma déggee sa waxam jooju mooy dafa xamoon yonent yàlla muhammad mu delluwaat si wax ji nga wax ne nit mëntu xam lu mu ki xamul yonent yàlla mm-hmm. Muhammad nag mm-hmm. foog naa ne du ko bëgg léegi naka la nit war a def mm-hmm. ba xam yonent yàlla Muhammad en tant jullit foog naa fan yi eh, am na jàngat gu ma def Sénégal mooy seen problème bi fi xam nii foog naa bu yàggul am na ku saaka saaga waajur yonent yàlla Muhammad jarul kenn mu tuur ñaqam ngir naqar lul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xam kenn kuñ laal si cité yooyu ma mu jaral réew mi joxe seen bakkan ba wax nañ ne am na ñu ci ñàkk seen bakkan. Mm-hmm, mm-hmm. ngir défendar ko. Mm-hmm, oustaz xaw ma li ma wax yaa ko bàyyi xel. léegi ndax ñun ñun jullit ñi bëgg nañ yonentu yàlla Muhammad te yàlla waxoon ne kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un xam ko jàllar bëgg saaka ndey yonent bi sallallahu kenn naqarloon li misli hada mm. yadhubu alqalbu min kamadin mm. in kaana fi lqalbi islaamun wa imaanu nu ni da def oustaz ba bëgg yénti yàlla ma xam sallallahu eh, macha allahu taala eh, xam nga li lépp dafa bokk rek ci mm. dese gi nga xam ne eh, dese nañ ko maanaam tey bu ñu xamoon kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ñuy wax di joxe référence ci moom te mënul nañu joxe référence ci keneen ak keneen ak keneen tey li li li li dal maanaam li ñu dal ci moom mm-hmm. suñ dese ki nga xam ne dese nañ ko sore nag lool mm-hmm. la daloon alu yasir mm-hmm. nañ seet alu yasir ba ñu leen jàppee di leen mbugal di leen fitnaal di leen toroxal ci lan weddi leen muhammad mi ngeen gëm lu ne ñu di leen ko def بان يونت بي رومبي تي مبوغال غا لان لا لين واخ اسبيرو على ياسر فان موعدكم الجنه الله اكبر هم خول نانجانغات بلال ابن رباح لين كو توراخال تي ويديل يونت يال محمد صلى الله عليه وسلم با ابو بكر الصديق فك كوفا بروم سميتو اميتو ابن الخلف ييوكو جيل اي كرواس ديكو دور ba yaramam di dag ñukoy watat ci mbeddi màkka yi ko ukfur ilaha muhammadin mu len ahadun ahad fardus samad mhm. bu ko fa abubakar fekke lan la len wax ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi allah ndax da ngeen a bëgg ray ko xamne yalla moy sama borom waaw xolal metit ya bilal dal mhm. dajon mhm. taxul mu wetti xolal metit ya alu yasir dal dajon taxo ñu ñu wetti dañu muñ ba leen fa yónentu fekkee lu mu leen wax sabran ala yaasir fa inna mawidukumul janna mm-hmm. Mm-hmm. yéen banu yaasir yéen waa alu yaasir yéen famille yaasir muñ leen mm-hmm. maa ngi leen di dig ne bu ëllëgee lii ñu leen di mbugal aljana ngeen cay jëlee